ngir nag euh, waajal màggal gi nga gis mbokki taalibe yi di bàyyeekoo fu nekk ñëw di jënd si ay nag waaye nag itam ñu ngi bàyyeeko fu ci mel ni Mali Mauritanie ba Daara Jolof ñëw fii ci Daara lu euh, Ndindi euh, ngir nag murit yi ñëw jënd ko def ko ci bis boobu nga xam ne ni sëriñ bi dafa waxoon ne nañ ko santale boromam li ko dalee ginaar ba gëléem diggante ginaar ba gëléem ndax xarañ ci biir naga ngi ci biir béy ngi ci biir lépp a ngi ci biir kon eh, inshallah allah rabbi dinañ dem xol tefanki yi ñi nga xamne ni ñu yoré nag yi laaj leen eh, fan la njëg tollu ndax nag yi ñu ngi dugg si bu baax wala deet lepp lu aju ci tayu magal gi dal fi ci daral gi ci Touba Ndindi Mouride TV fas nako and ak yeen jërë ngeen jëf. ma moom xana waajal ko rek ndax bis bi moom daanaka su jubee ñun ñëpp dañ ko wara a dara moom fi def moy bëgg eh, télévision Sëriñ yi nga xamne ne bëgg nañ seen magal baax uh-huh. kep ko xamne soxla nga ko suuf ñëwee da nga da nga am lu baax sa yomb nag yi danañ jugé Mali danañ jugé Mauritanie danañ jugé dara waaw. no amu différence. waaw hmm. amu différence magal gi bi muy jëf ci ñaata nag nga fi indeego. màggal bi mu jub si. Hmm. ah kaw na bari tu de. ndax man nañu xam limbi ah lim limbi limbi lim bi de mënu mo jàpp moo xam mom mom ay 500 amna 700 amna 600 amna 800 amna kenn ko nak prix nga bëgg dal 1 million nangam sax amna waaw ndax bisu mom bisunta mom dañ ci xam nga kenn ko nak li ngi ci jaayante waaw li señ bi waxoon rek xew ma ginaar ba xar ba gilim ba nag waane bisu moom suñu tuba lim si indi mooy xewali mu lay neex mu lay naqar daa am si for sant daal mooy ñu dolli sant Serigne tuba bu baax a baax a baax a baax sant yàlla ji li ci yonent bi di sant Serigne Touba di sant sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te waaw gilim yi nag euh, yii moom Sénégal lañ jógee waaw ci côté Jolof lañ jógee euh, naar yi ñoom ñoo ñu ko jox ñu indi ko fii lépp ci pour taaral bis bi daal teer mooy tukkal bi

waaw ñun waa Touba ñun dañuy dem jënd rek ñëw jaay. waaw màggal gi moom caayi moom at mu nekk da ngay gën a gis lu la gën a yéem daal mhm. at mu nekk mi ngi gën a yokk ndax bu njëkk giléem yu toll nii daawul ñëw daawul ñëw fii ci màggal gi mais léegi gis nga ko te yeneen coggal ñu ngi ñëw fi ñu toll nii tey rek dana am giléem yu bëree bëri dugg yoo xam ne dana ñëw tey ji tey ci bisu tey tey ci alxamis bi waaw dinañ ñëw tey ci daral bi nga xam ne kon mi ngi yokk bu njëkk ay xar la daan doon ak i ganaar léegi nag moom giléem yi daanaka ñoo dem sax ba dominer presque nag yi waaw giléem yi vraiment dañuy bëri bari bu baax a baax a baax daanaka muridi bu baax giléem xam nañ ko léegi waaw ñoo ko gën a xam naari te lépp nag ñi ngi sant Serigne Touba mhm. ndax bu nag yokke mhm. mën naa wax màggalu Touba bu xar yokkee mën naa wax màggalu Touba moo tax xar yokk bu njëkk béy danaa daana jar ay 6000 francs 7000 mhm. léegi nag mënutoo ko am ndax murid yi moom xam nga luñ dugg rek moom dañ ciy gis xéewal lépp nag ñu ngi sant Serigne Touba ak euh, giléem yi di sant sëñ Mountakha Mbacké mu yàgg fi ci wér waa jaww ji mi ngi sopp ko bu baax nag yaa ngi ñëw jur wax dëgg yàlla ñu ngi sant sëñ bu baax ñu bëgg na xam ndax jamono yi màggal gi aussi euh, njëg yi nga xam ne moom ngeen daan jaay ak léegi lan moo ci amagute waaw li France moom bariwul sax ndax xam naa ginnaaw yàlla dogal na jur gi yàlla dogal na ñu ngi ci am ni dina bari ren ca xam naa fekkee ni bari na mën naa yàlla mën naa def taw yàlla def taw féex mu gën a yomb waaw waaye nag nag dafa bëri façon waaw te bokkul. Oh. waaw yokk njëg gi moom mi ngi aaju ci nag wi rek ni muy mel rek waaw nan nag waaw maagul sëñ Tuubaa gi moom lépp lu bëgg sëñ Tuubaa koy defar waaw te xam naa ni moom ku fi ñëw ba dox ji ñëw dara ndindi ji moom bu soobee nga am nu mu ko bëggee moom bu soobee yàlla comme dara gi dafa rëy na il faut ñu am lamp yu ba lamp yu bari fépp mën a leer kenn ku ne léegi nga bëgg sa jur mën a aaru nga mën di teg sa bët di ko gis parce que loolu am solo la ci ci bërëb bi parce que ndin dafa doon di garabu xam ne ci population bi fi nekk dafa bari kon day xat xataay boo xam ci ku ne ngay gis ko war nañu am dara goo xam si war nañu am war nañu am sa leer leeraay bu lamp yu leer am sécurité bu doy tamit lool tamit dañ ko ci taamu daal waaw mbokk yi ñu ngi leen di bu baax di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba waa mbooloom daral gi ñoo nekk fii ci daral gi di liggéey xam ne war nañoo am benn bis boo xam ne si ni dañ ciy delloo njukkal Serigne Touba ndem mënuñu ko sax waaye dañuy jéem rek muy ñi nga xam ne si ni nii ñooy xëy di daan doole si daral gi nii ñun nag dañ cee gën a tuuti ñu di ñu wax loo rek amaguñ benn daayra amaguñ benn daayra dañuy dañoo jaante su ñàkk bopp rek taxawal ko nañ nag taxawal ko daayra tuddee ko daayira 18 safar waaw bii mooy première édition bi bii ñi ngi koy doog a def nii incha allahu rabbi bu bi passé nii daayira lañ ko fas yéene taxawal wàccee nañ fay kaamil jàng fi xasida togg fi ay berne tasaare ko jaami yàlla yëpp di jariñu ci ñu fas yéene koo dundal nag ba rek delloo njukkal Seexul Xadim képp mooñ tax a jóg du leneen li ko sabab mooy 18 safar bi nga xam ne moom sëñ Touba képp ku ci ñëw sëñ Touba moo la ci indi ci loolu moo sabab bis bi ñu fas si yéenee góor góorlu nag tey ñaan yàlla ren nag lañ ko fi soog a def ñun waaye dañuy ñaan yàlla feeg ñi ngi man dara ñu di ko continuer chaque année ñu di ko def ba am jilu lu kawe suñu njort loolu daal la ñaan yàlla naa góorgóorlu rek góorgóorlu rek te xam ne ku am jàmm sëñ Touba ko may fii ku fi man dara rek sëñ Touba tax ndax fii kenn mayu fi sa bopp dara bu doon ñu nag suñuy maam rek kon nag ni ña ca àll ba di lekk xorom ak jox waaye nag sëñ Touba nag moo moo moo diisal poos yi niinal bool yi ba tax kenn ku nekk tala tey nekk fii naan dañuy dañuy dañuy safar di togg añi ci mbedd mi. comme comme mënuñu ko woon a am ci kër gi bu ñu yombee bañ di ko togg ci mbedd mi waaye boo ñu ne jërëjëf Serigne Touba. bii tey leen ko njëkk a def waaw ci fii Touba Ndindi ci ak Serigne Taw Ndiaye ak góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi. nu waxtaane ko xalaat ko xam ne sëñ Tuubaa rek lan moo fi nekk jàng nañ fi alxuraan juróom-ñaari kaamil jàng nañ fi ay xasida di toog suñuy ñam di jox suñuy meew ak suñuy café di ko njukkali sëriñ Tuubaa loolu lañ fi def ci bisub tey bi kuy ñëw na xam ne sëñ Tuubaa indi nu sargal nit ñi yaatal leen dalal leen ba lu fi waayitoo nu def ko ngir sëriñ bu buñ ci jógee incha allah lii nu bëgg a def ci ko bëgg a fas tey tënk ko nu koy defal at mu ne sëriñ Tuubaa góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi bis bii kenn moom ko ku du Serigne Touba